waaw ndaje bi de ndaje bu am solo la euh, parce que PAMA dafa dugg léegi ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ko santoon son excellence de président Macky Sall sant ñu ko parce que bi mu génnee ci forum 2016 bi ci la PAMA bi juddu bind nañ ko bu yàgg même service centre de service partagé yooyu dafa nekk ci biir li nga xam ne mooy programme bi euh, ñu war ko doxal nag comme mënaguñ ko doxal parce que ñu ngi door a door ñu installé ay bureau loolu nag il faut ñu remercier ci gouverneur yi de région yi parce que bi ñu leen bindee rek dañu réagir tontu ñu mettre à notre disposition tax jox ñu ay place yoo xam ne mën nañ fa dooree liggéey bi euh, kon il faut ñu gërëm leen sant leen ba pare soobu ci liggéey bi ànd ci ak ñun parce que xam nañ ne loolu bëgg-bëgg son excellence de président Macky Sall la ndax li mu def rek yëpp dafa dafa dëppoo ak plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent laaj ay jumtuwaay yu bees laaj ay nit yoo xam ne seen taxawaay gën nañ ko xoolaat laaj liggéey bu gën a gaaw moo tax mu waxoon fast track loolu nag ci la ñu nekk bi ñu installé bureau fatigue bi tey ci biir installation bi joxe nañ ci ay matériel parce que phase pilote bi nga xam ne dématérialisation bi nga xam ne lu bees la te lu war a ànd ak plan Sénégal émergent la ànd tamit ak euh, liggéey boo xam ne dañ koy liggéey mais dimbale ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla mu jege leen mooy service bi jege leen ñaar yooyu soo ko lënkalee moo lay jox lii ñu indi fii tey dématérialisation euh, wàññi këyit yi bindu këyit mais également liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéey mu jege ñi ko moom ñu bañ a di déplacé wooti di jóge fu sori di ñëw ba dakaar temps bi di yàqu xaalis bi di dem te liggéey ba ñuy liggéey foofu tamit dina sooxee ndax temps biñ fa war a def dina manqué donc dina ñu manqué xarañ performance loolu yëpp tax na tey li ñu def ñu def ko bi ñu joxee matériel bi nag dañu bëgg phase pilote bi nekk ci secteur éducation loolu tekkiwul nag ne yeneen corps yi wala yeneen agent de l'État duñ leen toppatoo comme niñ leen war a toppatoo mais phase pilote bi dañ ko def secteur éducation parce soo xoolee jàngale bi presque mën nañ ne deux tiers agent de l'État yëpp ay jàngalekat lañu parce que bu ñu avoisiné ay téeméeri junni ci téeméeri junni ak juróom fukk boo ko xaymaa dana nekk deux tiers euh, ci ci li nga xam ne ñoom ñoom la ñu représenté moo tax président de la république nag def ci ñoom lu baree bare parce que tey boo xoolee mois de janvier bi ma dugg foofu tuuti janvier bii nii ñu génn ci la ci la ñu mujjee def sen yok indemnité de logement yokk bii nag am ak président Macky Sall defe naa ne booy fàttaliku ci ci ci carrière agent de l'État yokk bi bu nekkul bi ci gën a rëy tamit bokk na ci yokk yi gën a rëy bokk na ci parce que soo jëlee indemnité de logement boo xam ne dañ ko xayma ci ñaar fukki junni moom mu def ci juróom-ñetti junni jël na 40 pour cent dugal ko ci indemnité de logement jàngalekat yépp amul xàjj ak seen weer bi lañ ko mujjee lañ mujjee dugal ñetti junni yu mujj muy janvier 2020 bi moo nekkoon accord bi ñu defoon gouvernement bi respecté ko bu baax a baax bu ñu dématérialisation bi nga xam ne tey moo ñu fi indi li tax ma si insister dañu jël phase pilote jël jagleel ko éducation mooy li tax ma wax ko léegi parce que gis nañu président euh, yéene bu mu am ci dimbale jàngalekat yi dimbale agent de l'État yépp mais rawatina jàngalekat parce que jàngalekat dafay dafay yore loo xam ne lu ñuy def ci ku ndaw la mu war ko magalé té capital humain en place bu reuy ci biir plan Sénégal émergent bon kon xolé yépp da fa am cohérence euh, ñu jël phase pilote bi nag moo ñu jox IFI jox IA jox leen matériel informatique pour que kat bi dootu jógeeti deukam di ñëw Dakar pour déposer ci dossier dossier yi dootu nekkati dossier kayit day nekk dossier électronique même bu dee moom dafa indi ay kayitam teg dinañ ko scanner defar ko jaarale ko IA mu ñëw éducation nationale ñëw fonction publique ñu traité ko ko am nañu ñoom ay code yoo xam ne son seen numéro projet yi bu ko dugalee dinañu xam seen dossier fu mu toll dinañu mën a scanner seen act bu génn parce que acte bu ñu defar rek dañ koy dañ koy def en ligne ñom mën nañ ko génne loolu actuellement am na ni waaye seenu dépôt bi rek lañu bëgg a moderniser dématérialiser ko nga xam ne numérique lay doon voie numérique lay doon voie électronique ñu ngi leen di signaler ay acte par voie électronique euh, ñu ngi ñëw di seeti seen i seen i dossier par voie électronique mooy li xew tey ji ko am renseignement boo ñëwee fi da ngay bindu ñu ñu dugal la enrôler la nga xam say information euh, ñi seen dossier yi manqué Euh, ba mu amoon ay rejet ñu ngi leen di ñëw di leen laaj nañ ko indi ñu complété ko ñu yóbbaale ko ñu defaral leen seeni at ku bëgg a bindu ci e-solde nga xam ne foo toll mën nga xool sa salaire ak sa code te keneen du mën a xool sa code nga xam sa salaire ñaata la par weer wala nga xool sa salaire annuel ñaata la par at loolu yëpp tey jagleel nañ ko agent de l'État yëpp rawatina jàngalekat yi boo buggee tamit nekk ndaw euh, sa sa diplôme bag nga war ko jël

ubbi nañ boobu consultation gratuite ci jouru lancement bi fii ci Fatick mu ngi dox loolu dana dox Kaolack liñ def fi dinañ ko def Kaolack def ko Kaffrine dinañ ko def ci région du Sénégal yëpp incha allahu rabbi ndaw yi wut liggéey aussi bu ñu ñëwee fii dañuy dañuy bindu en ligne déjà mais bu ñu bindoo en ligne souvent dañuy ñëwaat Dakar jël si ko wala bu dee Dakar la ñu nekk tamit dañuy ñëw ci ministère bi jël si ko yooyu yëpp dinañ ci jël ay jumtuwaay ba nga xam ne bureau relais yi moo koy dox léegi du jarati ku nekk di jóg di bàyyi say classe wala nga bàyyi loo doon def dem di wuti ay këyit loolu son excellence de président Macky Sall daf ne loolu nañ ko dakkal donc fonction publique nag ci PAMA mu ngi liggéey ak ministère yeneen yu dul yi ma tudd léegi ci affaire euh, autorisation de construire ci affaire branchement sociaux bari na ay 50 procédures yoo xam ne dañ ko war a dématérialiser ci différents ministères yi dañ ciy liggéey ak ñoom pour lolu mën a sorti euh, pour affaire jàngale bi système de rémunération il faut que ma wax ci bokul tay ci lancement bi mais dama ci bëggone sanni touti parce que système de rémunération bari na ay njitu rew yu fi jaar question bi nek question bu xaw sensible bo xamné nit ñu bari dal sawaruñ ci woon pour pour diko diko saytu président Macky Sall ñëw ne mom dina ko saytu ndax gis na ci biir ay inégalité yoo xam ne ñàkk tolloo boo xam ne ci traitement agent de l'État yi mu daal di ñuy dénk liggéey boobu ñu sóobu ci liggéey boobu ñu def ñetti atelier def ko ak acteurs yëpp jàngalekat yeeg yenn ñeneen yi nga xam ne nekkuñu jàngalekat te nekk ay agent de l'État ministère yi mu concerne yëpp ñëpp ñëw ñu def ay atelier ba jël conclusion yi mu ne leen su ngeen paree jox leen ma conclusion ñu jébbal ko conclusion yi mais ci biir loolu balaa loolu déjà am na ay jéego yu mu def yoo xam ne pour gën a taxawal agent de l'État yi la def nañu ko ci santé boo xoolee tey santé médecin yi am na yu bëri yu ñu daan jooy tey ak le président Macky loolu jeex na jàll na ci la am ay indemnité de représentation médicale ñi nga xam ne tey dañu def spécialisation ñu defal leen ay indemnité de spécialisation yoo xam ne ñun ñi chaque mois day jaar ci suñuy loxo ñu koy signé selon la durée bi nga def pour spécialiser wu montant yi noonu lañ leen ko fayee ñu ngi koy jot di ko fayeeku euh, ay corps yoo xam ne dañ ko doon laaj ci biir administration dans le cadre de la de la gestion de des statuts et des carrières ñu yokkal leen ko créer leen ay corps am na ay corps administrateur yoo xam ne tey hiérarchie yu mag la ñu créer ko pour les les agents de santé ñu jógee maanaam ci statut bi dem ci benen statut ñu ñëwati ci justice ñu doon laaj tamit ay création de corps pour yéeg ci kaw genre passerelle yi nga xamné mayon mayoon nañ ko fi enseignants yi am nañ ko xex la woon ba nga xamné dem nañ ba gagné ko am ko loolu aussi président de la république nee nañ ko défal wa justice bañ def ko loolu tamit yokkute la euh bi mi bi muy impôt sur les salaires

dañ leen a dañu la laalagul ngir dimbali leen ñoom it ñu yegg fenn fi parce que am na ñeneen nag yu nekk si biir fonction publique ñoo xam ne tey seen traitement xaw na sooxe par rapport ak ñi ñi ci des ñi ëpp ñëpp ñooñu nag président moo leen bokk njabootee ñooñ tamit war nañ xool nan lañuy ñu war a def pour ñooñu ñu ñoom it ñu am fu ñu am lu ñu yëg ci yokkutee loo xam ne dana leen tax ñu gën a fonk seen liggéey parce que nag ñu ngi fonk seen liggéey waaye gën a fonk laa wax parce que booy liggéey yem ak sama moroom at yi ngeen jàng kooku ëppale la la salaire boo ne bëgg nga tamit xëy na dangaa bañ a wax rek euh, te ñu bari nag dégguñu leen waaye ñoom it mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ñooñu nag am na tamit lu gouvernement di Sénégal walla état warloo ak ñoom loolu yëpp nag moo tax mbir mi xaw a yeex ñu koy jàngat di ko xool pour que équité bi président di wut mu mun ko am